siyaar ci bis bu tedd bi nga xam ne ci lañ nekk mooy tombeek juróomi fan ci weer bi nga xam ne mooy mois de septembre 2016 xel yëpp dem nag ci bis bu màgg boobu nga xam ne nag moo doon 1895 bi nga xam ne ci leen doon àtte sëriñ bi foofu ci bureau gouverneur te ñoom ay tuuma yuñ ko tegoon woolu woon ko nag mu nekkoon ndar ay fan ba bis boobu mu tombeek le 5 septembre ñu woo ko ngir àtte ko waaye sëriñ moom bi mu ñëwee rek dafa nekk baaxam ñaare fu fu mu ëgg ci barab rek day julli day julli ñaar rakka ndax loolu baaxam la tey léegi sunna sa yonte bi daan def moo tax bi mu see rek dafa daal teg ab daram daal di kàbbar julli ñaar rakka daal di sëlmal waaye nag lii mbir mi mooy fa mu ko defee maanaam barab ba mu ko defee miinu nu ko woon e, maanaam te foofu it barab la boo xam ni ku lan taxoon ñu koy woo bu fekkoonte ni xolam yàlla rek nekku ci woon kon defe naa du def loolu yéene ju rëy nag moo amoon ci digganteem ak suñu borom ba fu mu nekk feeñal suñu borom moo waral nag bis boobu mu nekk ndam lu rëy dëgg la ñaari rakk la yoo xam ni sunna la ko julli waaye sunna dina wecc lu bëree bëri ndax dafay xam ngeen ni euh, Seydina Omar keroog bay julli ya di julli tam leen di garde te julliwul woon keroog benn julli jullit ëpp ko woon dara daraja ndax moo leen garanté ba ba nu mën a julli sëriñ bi nag loolu moo tax ñaar rakk yi saa yu ñëwee. ñu fàttaliku ko muy jëfam jut jut yàlla jooju nga xam defoon na ko te yàlla moo taxoon mu ko doon def. lan mooy nga sëriñ moom ay mbiram dafa leer. faaroxtu iblisa wa jamil mafasidi wa bismillahi rahmaani rahim laa samtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa jamil masalihi lépp lu bon ni ma teqalu kook moom noonu laa teqalu kook iblis lépp luy iblis rek sëriñ bi ne jotuwuma ak dara moo tax lépp lu bon rek sëriñ tubaa jotewul la moom dara waaye ne damaa taxu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak lépp lu baax kon Serigne bi dégluwul lu yàlla dégluwul terewul lu yàlla terewut lu mu tere lu ne yàllaa ko tere lu mu digle lu ne yàllaa ko digle kon Serigne bi moom mbiram leer naññi nee na moom fi ma jëm man yàlla rek moo ma tax a jóg kon nag maanaam li ñuy digle rek loolu ndigalu Serigne bi la lu mu rotal di ko baamoo ko baamuwaat mooy ñu nekk ci jub te ci yoon seet li yàlla digal ñu nekk ci lan yàlla tere ñu bàyyi ko te bàyyi nag yi ñuy dooral Serigne Touba te yoonu Serigne Touba ci ndax loo xam ni boo nekkee ci barab di ko def te bu la sëñ sii Sidi Muxtaar Mbàkke la woon nga nëbb loolu doo bëgg mu gis ko loolu xam nga ne dug taalibe kon murid lépp lu mu nekk wurta bañ ab sëriñam bett ko woolu ko mu yóbbaale loola dangay jàng alxuraan sëriñ bi woola nga yóbbaale ko ngay jàng xasida sëriñ bi woola nga yóbbaale ko waaye boo doon diglu musique ba sëñ bi ñëw da nga fay loolu leer la soo nekkoon cim tëgg ba sëñ bi ñëw danga da ngay noppi da bàyyi dem wuy ji sëñ bi kon na nga nekk ci ci li sëñ Tuubaa digal mooy lu leer la kon nag sëriñ bi moom diglewulu yàlla diglewul terewulu yàlla terewul kon li gën mooy ñu nekk liñ sëñ Tuubaa digal tey buñ ci yemee moo ñu noppal tey moo ñu noppal rek tey it suñu sag moo gën ci ñun moo ñu gën a noppal ndax leneen loo def te sëriñ Tuubaa diglewul coono ba nga cey am te doo ci am sëriñ Tuubaa amul benn njëriñ la ngay def sëriñ bi digal la ko bànneex ba nga cey jëlee te ba nopp mu nekk li sëriñ tubaa digle su ëllëgee di nga ci am ndam kon na nekk ci liñ sëñ bi digal moytu li ñu tare déedéet xam nga <clears throat> ñaar rakk yi li nga sabab mooy 1895 Sëñ Tuubaa julli woon ci biir gouverneur fële ci Ndar 1995 moo nekkoon téeméeril at bi ñu yaatal ko ndax xar xarnu lislaam da koo soxla maanaam lu ma téeméeraat bu ne yàlla day yeesal dara moo tax ñaana jëf ju ñuy jëf ci lislaam ba mu am téeméeraat rek boo ko xoolee soo ko xoolee am na lu mu màndarga ci lislaam léegi nag at moomu ci lañ ko tàmbali ko def boobu nag daa fekk Serigne Saliou Mbacke nekk fi ndax ñu ñii defe naa li may wax ñun xam nañ ko ñun suñu lépp sëriñ Saliou Mbacke la ndax sëriñ Saliou suñu ji moo ko tudd moom la naan siyaare ji moo nu jox ndigal mooy defal lépp bari na ñu jëflante ak moom sax ñu duñ ko nettali ndax loolu duy teggin waaye li am solo daal mooy jamono yi nga def booy Cheikh Saliou Mbacke mu ngi fi jumaay ji ngeen taxaw nii tey moom moo moo moo moo moo joxe ndigal li moo ko feddali waaye ñu ko waat joxewaat woowaat yabal kenn ñu teg ñu teg xeer wi mooy jumaa ji ñu taxaw nii di julli nii tey kon fii sëñ tubaa ñëw na fi am na fi ñetti fan te boobu jiitu na géej gi jiitu na ndax loolu ba mu koy def ci coobare boppam la ko defee nee naa barab bu sëriñ tubaa dem ci coobare boppam dara dafaa nekk bi ko tubaab yi jàppee di ko yóbbu nag fu mu dem fu nekk soo ko xoolee moo fa yóbbu dara fii sëñ bi dara dafee nekk mu ñëw fi moom la wax lastu ajulu liltimaasi maarifa nakiratun kuntu fa sirtu maarifa mosumaa wëndiru ngir ñu xam na toog naa ay jamono kenn xawuma mooy jamono yi muy wër waaye dem naa ba ba jamono ñëpp xam ma kon toog naa ay jamono kenn xaw ma mooy bi mu doon wëral coobare boppam dem naa ñëpp xam ma nag mooy bi ko tubaab bi jàppee kon fii coobare boppam la bi mu fi jógee la dem Bargny fekk fa maam Mor Jaara ak maam Cheikh ci ku ci daara ku ñuy wax Thierno Yoro Ndiaye kër ga sëñ sëñ Touba nekkoon boo demee ba léegi mu nga Bargny bi mu jógee fi Bargny la dem kon bi muy ñëw fii sëñ Touba fu mu dem ci coobare boppam rek ti jiitu tubaab bi jàpp ko fa mu jëm fu ne rek dara nga fa te fii am na fi ñetti fan door fee jóge am na beneen jullukaay bu des ca biir te su mos a dem ngeen gis ko fa la daan yentu kon sëriñ Tuubaa loolu nag moo tax jëfam jooju nag mu andi lii te sëriñ Tuubaa nag dañuy wa kulla buqatin salaytu fiiha wa hiya baabu mi abwaabi sama yasadu fii awliyaawullaahi bépp pàkk bu ma julli bunt lay doon ci asamaan wëllu yi ci lay njaar dem aras suñu Abdu Lahad ne woon na pàkkub Kayaar nag bokk na ci bunt yi gën a rëy suñu Abdu Lahad moo ko waxoon titre foncier barab bii it suñu Abdu Lahad moo ko toppatoo mu fi sëñ Abdou Lahad Mbacké moo ko topp tool ci loxo boppam ba mu ngi fi mu ni barab yi mu wóor ni sëñ Touba julli na ci Kayaar ci la bokk waaw du tuddee sax du tuddee ñun ñaaree bis bi duñ ko tuddee ma xam nga bis bi duñ ko tuddee kenn ndax jëf ji jëfi sëñ Touba la waaye nag dañ ciy waxtaane mag ñi ñu seet ni toppoon Serigne Touba ak jikko yi ñu yoroon ñu koy waxtaane ngir ñu mën cee roy ren nag Cheikh Mouloune Baara moom Serigne Touba moom lañ fas yéene waxtaane ndax ñu bari da ko umpale ci ak dundam moo tax ñu fas yéene ko waxtaan bis bi nag duñ ko tudd kenn dañ koy bàyyi boroom jëf ji mooy sëñ Touba. li nga xam ne mooy ñaari rakkaay Serigne tubaa defoon ci ndar bi nu fi jógee dem ci Serigne Saliou laaj ko ndigal Serigne Saliou jox nu ndigal ni man ngeen ko célébrer foofu ca Kayar te ngeen teg lépp nag ci sunna ni ko sëriñ tubaa doon màggale ca biirom ndar ba ndax comme sëriñ Touba moo ne woon euh, képp koo xam ni jóge nga fii ci réew mi fekk ma ca Mauritanie siyaare ma. am nga yoolab siyaar ba ko laajee sëñ Abdou Khadir Mbacke mu ne ku ngeen siyaarewaat te loolu rek tax am ngeen yoolab siyaar ko loolu moo tax ñu jóg di màggal bis bi nga xam ni sëriñ Serigne waa julli woon na ko ci ndar waaye ñu commencé ko ci 1995 di ko célébrer ren mu nekk ñaar fukkeeli at bi ak ñaar ci ndigale Serigne Saliou Mbacke lañ ko defee woon. Mm-hmm. waaw waaw sëriñ bi. lu jiitu muy dem ci géej gi fi la ñëw fii ci Kayaar am fi ñetti fan foofu ñu nekkoon doon fa julli léegi booba fi la dëkk bi nekk mag ñi foofu lañ dëkkoon waaye feebar bi ñuy wax pest moo leen fa dàqe woon en 1909 lañ jóge foofu ñëw fii ñu taxaw tey samp fi foofu la leen Serigne Touba fekkoon nekk fa ak ñoom ñetti fan di fa julli am na beneen jullikaay bu nekk ci biir boo xam ne fa lay yendu bu ngoon jotee mu ñëw ngir jëmmi doomu aadama ji nekk ak ñoom ba asamaan set ba mu julli fajar ba pare delluwaat ca barab boobu loola it liy tegtal li mooy bim bi Seyna Isa Laay laqoo mag ñi jóge fii dem yoof jaale ji ko bi nu wëlbatikoo fekk sëriñ sëriñ Fàllu ci këram gi nekk Padoa foofu ci jumaa jooju ñu ko tabaxal bi nu ñëwee ci moom wax ko ko di ko laaj ndigal ci barab bi sëriñ Fàllu da ni sëriñ bi day am na fa ñetti fan barab boobu de na ngeen ko fonk lool ndax bokk na ci bunt yi gën a màgg yi suñu borom yi jaa yi yi nit ñu baax ñi di yéegee jëm ci seen borom barab boobu sëriñ Fallou loolu la ci tegtale waaye sëriñ Abdou Lahad moom bi mu ñëwee dafa dëgërël loolu moo toppatoo kayiti barab boobu muy titre foncier bi ba tekkee ci loxoom mag ñi li leen nag bokk na ci bunt yi gën a kawe nga xam ne ci la wàllu yi jaar di yéeg waaye bunt la boo xam ne defarug dëkk ba mu ngi ci bunt mu ngi ci mu ngi ci place boobu te loolu it lu wér la ci ñun ndax ñun ñu fi dëkk dund nañ ko saa boo xamee ne teg nañ fa benn birig rek dañuy gis yokkute bu rëy ci biir dëkk bi ba gis nga tey jii usines yaag lépp romb nañu place ba courant boobu nga xam ne moom lañ doon utiliser bi nu fa nekkee usine bi nga xam ne moo ko fa indi bi nga xamee ne indi na fa courant ba pare te ñun amul mosunoo am courant foofu ingénieur bi bi mu ñëwee xool courant bi dana doyul usine bi courant bi woonu bu ñëw mu ne jël leen usine courant boobu man ma dem mutiwaat beneen courant loolu ci mandargay bis boobu la waaye mandargay dooley barab boobu la nga xam ne sëriñ sëriñ sëriñ Touba defoon na ko foofu waaw liy jëmal biis bi rek mébét bi rek mooy lépp loo xam ni Serigne Touba bëgg na ko ci ñu taxaw ca loola di ko ci def bëgguñu dara loo xam ne daray àdduna la lu ci dugg ñun daal lépp luñ ciy def nañ ko teg ci li nga xam ne moom la Serigne bi woote woon muy euh, sunna ak faratay sunu borom ji ndax taxawal xam nga nii fa mu doon jullee julleewu fa farata koo xam ni ñëpp lànk nañu ñëpp dëgër nañu ngir tubaab yi taxaw nga taxawal yow waxuma la farata waaye sunna nga taxawal di ko dëgëral kuy taxawal sunna di ko dëgëral bu farata ñëwee nan ngay def loolu nag moo tax ñu am mébét boo xam ni barab boobu gis ngeen lañ fa commencé waat muy morgo ba muy toilette ya fa ne muy kër Serigne Touba ganuy tabax ca kaw lépp ànd kaak jumaa ji pour taaral barab ba lépp ñu ngi ko teg ci liggéeyub Serigne Touba rek di ñaan Serigne Touba nangul nu sunu sunu sunu jëf te bu ko nangoo mu def ko ay xéewal tuur ko ci suñu réew mi yëpp ndax bu kayaar amee xéewal te réew mi amul xéewal dara amul Kayar amul dara bu réew mi amee xéewal te sous-région bi amul xéewal réew mi amul dara ndax sous-région bi bu sonnee ci ñun la jëm si kon ñun ñëpp nañu bokk ñaan xéewal rek Serigne Touba nangu na sunu liggéey te def ko muy xéewal goo xam ni da koy sotti ci adduna bi yëpp waaye nag en particulier mu sotti ko ci Sénégal gii nga xam ni fi la nu fekk baax waaye rawante na nag région bii ñu nekk di waaye nag dëkk bi ñu nekk it bi ñu nekk di tund Jandeer waaye dëkk bi ñu nekk di Kayar loolu mooy mébét bi nga xam ni am nañ ko ci barab bi waaye am nañ ko ci bis bi fas yéene nag barab bisab Serigne Touba bi saa bu ñëwee rek mu gën a yokk ndax xam ngeen ne wenn waañ la woon tey ëpp na téeméeri waañ ku nekk mu ngay togg di joxe ngir bañ kenn xiif bañ kenn mar te am na loo xam ni wax day tungoom seedeem yéen a ko gisandoo gis ngeen mbooloo mi ni mu génne xam ngeen ne yàgg ngeen fay ñëw waaye mbooloo mi chaque année day gën a yokk loolu rek mooy mbir mi bañ naka ba ñu nekk Kayaar te fi ku ci nekk rek boo génnee bis bi ngay xaar mu jot nga takk sab saak ñëw bu dee ñu nekk Europe extérieur fépp ba ci Brésil côté bépp ñu ngi xaar bis bi ñëw pour ñu takk la ñu am envoyé ko ci ci ci ci ci ci euh,